kuréel bu Touba ak bu Dakar ak kuréel 2 bu Touba bu daara isbu nekk ci njàng bu rëy ci xasaayu du Cheikh Ahmadou Bamba Mbakke yi ñoom nag ëpp nañ ñeent fukk nekk nag di xoolaat seen organisation ci màggal bu mag bu Touba bi ñu jëm te ñu waajal ko fanweeri fan ci weerum novembre wala benn fan ci weerum décembre. Hizbut Tarqiyyah léppam màggal la. jub nañ màggal gu mag gi muy grand màggal de Touba di 18 safar te ñun ñëpp xam nañ ne lu doomu aadama am lu julli ñi am lu murid di am rek màggal gu mag gi moo leen ko may ndax Serigne Touba ba muy dem àndul ak kenn loolu nag moo taxoon li nga xam ne noonu la is bu tarixee di doxee ñu nekk ca waañ wa dañ koy waajal ñu nekk ca administration ba di ko waajal ñu nekk ca réception ba di ko waajal noonu itam la ko kuréelu day di waajale at bu jo fi mu toll nii tey ci samedi bi ak dimanche and ko ak lu mat ñetti kurel ci isbu tarxiya ngir ñu wajal magal nga xamne dañu fi def ñaari réunion ndaje bi ni mel nak ab njëriñ bu reey la ci ñi nga xamanteni ñom ñoy yekkati xasaayi di ñu defar seen atelier tambali nak walum répétition yi Dakar

jëm ci sam xasida yi wormal ko ak fonk ko te lolu moy sunu njëriñal tay moy sunu njëriñal ëllëg su nak da fay def ay recommandation jëmele ko ci kato xasaayit yi ñu gën a wat ci seen walum prestation waye intam moytu di yaq baat yi ci xasaayidu Cheikh Ahmadou Bamba mbake yi euh, Serigne Touba mi ko kon fonkel gi ci la jëm euh, ak tagatu ba nga xamne njàngin mi dinañ ci yëg coono boo xamante ne defees na ko ci ngir xeeti xarala yëpp yuy tax daaj yi mu tax nit ñi koy déglu mën a teewlu nit ñi koy déglu gën a xam gën fonkaat xasida yi loolu mooy liggéey bi loolu nag. comme ni ñu ko ràññee ci service yi yëpp nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah conservatoire national ñoo ngi yëngu bu baax ci waajtaayu magal bu Tuuba bi loolu yëpp nag ngir woon taalibe yi. ay prestation yu wóor ci wàllum du Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké yi